man maay Fatou Gueye Diassé madame Mbengue nekk coordonnatrice CEDAF le centre départemental d'assistance et de formation pour la femme. kon defe naa li nga xam ne moom lañ fi waxtaane woon nañu fexe rek ba jëfe ko. ndax eh, yàgg nañoo daje ci saal bi di waxtaan. lii nag nga xam ne moom lañ fi tëral. muy redynamisation comité consultatif bi nañ leen ko def nu mu gën a gaawe te yaakaar naa ni balaa ñu fiy jóge sax dinañu jàpp date bi nga xam ne moom la ñuy dajawaat fii beneen bi mooy que ni recensement bii nga xam ne moom la ñu wax léegi rek laay woon day faat sama portable di ko wax xoolal préfet bindal ma ci urgence signalé urgence signalé ça veut dire que ni urgence taxaw na lundi bi nga xam ne moom la ñu joxe date butoir nañ leen fexe ba lundi 18h man ma mën a dajale yépp jébbal préfet ni ko li nga xam ni moom la comité consultatif de la femme daal di def beneen bi mooy fiche yi fiche yi nañ leen xool naka lañ ko mën a remplir ba mu baax te ñu fexe nag éviter les doublons parce que am na ñoo xam ni dañuy jël prêt fii buñ nee prêt rek ñu bëgg a jëlaat prêt nañu fexe ba ñooñu ñu identifier leen ba pare nag bu ñu fàtte ñi fayul derviche ñi fayul kenn du leen dugal kenn du leen dugal te ñi fayul dara dootul amati ba ñu dugal leen ci te ñi fayul nañu xam ni banque bi nga xam ni moom lañ la jaarale woon prêt bi muy INSEC bàyyiwuñu de dañ leen di topp de dañ leen di topp ba nga xam ni dinañu fay parce que lépp te fayoo léegi dafa jeex dafa jeex te ñun jigéen ñi nañ leen essayer xool ni xam ne nag lii nag du suñu avantage te ñun ñii ci suñu biir ñun ñoo war a chaque fois bu fekkee ni ñun gis nañ ni kii fayul bu ñu yàqal parce que bu fekkee ni groupe bi la groupe bi yépp na leen leer ni groupe bi du kenn ci ñoom koo xam ne dina mën a amati parce que caution solidaire lay doon costion solidaire mooy ñun ñi ñëpp dañoo booloo jël ni lii kat ñu ñoo jël garantie bi que ñun ñëpp dinañu fay. donc loolu aussi ñu def ko le plus rapidement possible date butoir bi c'est le vendredi vendredi 30 incha allah war nañu dajale yëpp pour que Ndeye Fatou Ndiaye mën koo yóbbu di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp wax dëgg jot yombul mais bàyyi ngeen seen yëpp ñëw toog lii moom mooy wane liñ leen woowee am na importance ba tax ngeen ñëw toog amul kenn ku flanché. bu nekk jël na parole wax li nga xam ni moom moo nekk ci sa gox wax li nga xam ni moom moo nekk lële li nga xam ni nag moom ngeen fi wax tërale ko wàcce ko mooy financement te je pense que ni financement mën ngeen ko parce que système bii ngeen wax mooy que ni ngeen di daje tous les deux mois def seeni cotisation teg xaalis boobu ngeen bàyyi ko ca gox ba nga xam ni moom moom moo leen accueillir mu financé ñooñu beneen yoon ngeen dajalewaat teg plus la nga xam ne ñee ñoom la ñu jot a yeeku financé beneen gox defe naa ni loolu boo leen ci doxee ministre de la femme dina kontaan ci yéen man daal loolu laa amoon ci loo xam ne lu ma leen di tënk di leen ñaan di leen wax ni nag on se donne rendez-vous incha allah su neexee suñu boroom euh, lundi ak vendredi suñ fa jógee euh, janvier la ñuy dugg incha allah le 10 janvier lu muy tombeel le 10 janvier ñu dese dasewaat fii pour faire le point def le point seetal lu muy tombé le 10 janvier ah mardi mardi 10 janvier ñu def le point jéem a xool nag seen plan d'action bi nga xam ne moom ngeen tëraloon ñu xoolaat ko xoolaat nan ngeen di organiser à tour de rôle li nga xam ni moom mooy euh, seen sortie yi nga xam ne moom ngeen war a def dans les différentes communes di wax ni tamit bu ñu fàtte tout le temps di ñaanal Oumou Diop ak Farin Ndiaye ak Roqee Ngom ñooñu dañu nekkoon ci suñu seen biir doon ay femmes yu takku ay femmes jàmbaar ay femmes jàmbaar di liggéey ba yàlla suñu boroom weer di def li nga xam ne moom moo gën parce que suñu boroom moom du def loo xam ne lu mu gën te ku matal dem nañ leen di bàyyi toujours xel di leen ñaanal waa kañ loolu laa amoon li may wax. jërëjëf madame Mbengue ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. di nuyu tamit di rafetlu bu baax dalal gi ñu dalal ndax ñëpp xam nañ ni SEDAF mooy suñu kër comme mooy suñu kër nag ci ki nekk ci kër gi ci bunt bi nungu nañoo ubbi liyaatool ñu loolu dafa am solo lool may nuyu coordonnatrice yi fi teew yëpp ndax tey comité consultatif départemental ñoo fi daje bu ñu xoolee fukki commune ak benn teew nañ fi xañ na ñeenti commune rek la am yoo xam ne teewuñu li sababoon daje bi mooy le 20 bii ñu génn ministre de la femme da doon recevoir les présidentes comité consultatif départementaux ak régionaux ñu am ak moom jataay bu yàgg bu yaatu bu am solo tam ñu jàngate fa tamit lu bëree bëree bëri mu mel ni ñun suñu jooy yi ñu doon jooy dañuy waaj am ku ñu ko fajal ndax jafe-jafe yi ñuy dund ministre de la femme fas yéene naa ànd ak ñun saafara ko ndax xam na ko te it ku ne xam na ni actrice de développement la dëkk fii ci njaareem doon doxal développement ci Promoise nekkoon tamit ministère des finances ma nekkoon directrice su DRS yàlla dogal mu dem ba tey nekk ministre de la femme yor ay groupement comme ni ñu ko amee jataay boobu tamit doonoon jataay bu neex ndax lépp luy jafe-jafe ak gàllankooru comité consultatif yi yàlla dogal na génne woon nañ ko fi waaye bu ñu xoolee rek ci tënk ñun li ci suñu taxawaay tey mooy ñu taxaw ci recensement bi nga xam ni président de la république sant nag ko ni ko organiseel ma femme yi ndax bu ma sañoon milliards yi may génne muy dem ci jigéen ñi dina egg fi mu war a egg organisation nag recensement da ciy jiitu nga xam ne du ñu bàyyi kenn ak kenn ba tax na circulaire boobu ñëw na ci gouverneur yi ñëw na ci préfet yi ñëw na ci sous préfet yi kon ñun ñii fi nekk kenn ku nekk da ngay jigee sa sous-préfet jox ko organisation de femmes yi nga am yépp bu ko defee ñoom bu ñu collecté loolu daje dajale ko ñun ñu am ko au niveau de SEDAF base de données bi jógee ci département de Thiès ñu dinañ xam ñaata organisation de femmes suñu paree yeneen département yi def ko ba ñu mën a xam région de Thiès ñaata OF ñoo fi nekk soo dee dimbali xam ni fii ngay jaar kii ngay dimbali. képp kuy GIE nag walla ngay association wala nga amooy këyit ca nga euh, nekk non formalisé nañ la ci boolewaale ndax it ministère bi li mu mébét mooy kenn ku nekk dinañ la jàppale ci formalisation waaye li ñu dul nangu rek mooy attestation yi ñu doon wax nee na moom jeex na takk dama dañ ma attesté fay naa lii wala jox nee na loolu moom nangootu ko ci ministère am amul te recensement bi tamit képp ku ci bokkul ba mu weesu mënatoo dabe waaye ci base de données boobu mu am rek ci lay démarrer liggéeyam ak président de la république am na Aziz bu ñuy waaj tamit mois de janvier balaa ñuy egg ci loolu dinañ xam Sénégal ñaata organisation de femmes ñoo fi ne région bu ci nekk ñaata organisation ñoo fa ne département bu ci nekk tamit ñaata organisation ñoo fa ne ñun nag lii suñu wàll ñun comité consultatif nañu fexe ba boole ñëpp fu ñu mën a retiser nañ ko def bépp organisation bu mën di doon daal bu la bàyyi gannaaw nañu jege sous préfecture yi nañu jege SEDAF ndax loolu la ñu am foofu lañu ñu yebal beneen bi ci des fiche yi pour ay financement la groupe de dix groupe de dix yi tamit bu ñu gisee ñu jox ko comité consultatif du politique bu doon politique dañuy dem ca seen langue politique section yaak secteur ak yooya waaye boo xisee ni comité consultatif politique génn na ca développement la ñuy def xàmmewul parti xàmmeewul dëkk xàmmewul lenn bokkal département de Thiès bokkal ci ab commune doonal jigéen bokkal ci organisation bëgg ngaa financement kon coordonnatrice yi ñu koy jox bu ñu demee ñoom ñooy yaatal ci seen biir commune yi dinañ fexe ba commune bu ci nekk am ci fiche bu ñu demee yaatal ci seen i biir organisation recenser ñi nga xam ni wér na leen ni ay liggéeykat lañu ndax it nag du ñu lebal kenn nga bañ a fay ëllëg nga indil gàcce Thiès ndax ñun moom boo ngeen gisee bor yu bari duñ ko jël ragal gàcce la ndax buñ nee diw du faykatu bor loolu moom ca mu bokk ci sa mbootaay loolu moom gàcce mënu koo mag waaye kii liggéey ca am ci soxla boo ko ko lebalee dina ko fay kon loolu liggéeyu yéen ñi fi teew la yéenay fexe ba mu egg fi mu war a egg yéenay fexe tamit ba ñii ci war a bindu bindu ci bu ko defee ñun dinañ ko delloowaat ministère ñaan yàlla ni ñu ko yóbboo ñu financé ko noonu mu dellu si waat ci yéen ñu jàpp ni daal tey ñun lantinoor lañu ci biir département de Thiès waruñoo téye benn diw nañu redynamiser waat nañu boolewaat suñuy xol boolewaat suñu bopp àndandoo liggéey liggéey bu sincère képp ku ñu jàpp ni dem nga ba tële nañu ni ah kii ka tële na na puus kon keneen ñëw. du yàq ci yoon wi dara te du ci ànd bi dara mais daal ñu gis gëm ni war nañoo dem mën nañoo dem te Cees gi ñu nekk kenn tanewu fi ñii fi nekk li ñuy liggéey amul benneen kuréel bu ko fiy liggéey kon nag loolu buñ ko xeet la ma doon wax keroog rek ma naan ma ni ma ni bu bu bu président xeebee liñ koy defal ñun ci développement fii ci département de Thiès bu ko génnee ci ñun amul keneen ko fii defal kon bu ñu xeeb suñu bopp nañu gën a jàppaat suñu kuréel nañu gën a organiser waat lii ñuy wax muy tournée yi ñuy def bu ñu ko négliger nañ ko def loolu dina gën a tax taxaay bi dina am te bu ñu yem tamit ci ministère de la femme rek man de bu ñu defee base de bi ba pare ñu dajee def réunion bi ci def nañu seeti képp koo xam ni yor nga ay fonds yoo xam ne war naa mën a dem ci jigéen ñi nañ la seeti maa ngi koy wax rek directeur u AIBD mën ko jigéenu département de Thiès foog nga dimbali leen jigéenu département de Thiès dañoo sonn foog nga dimbali leen mu ñu ma defar leen projet bu ngeen defaree projet dinañ toog étudier projet bi te dinañ ko financer kon loolu ñun li ñu am nañ fi njëkke bu ñu paree jëggaaniwaat ci biti kon man sañ naa koo wax ndax comme ñun ñoo fi nekk ñooy organe de décision war nañoo mën a xam lu ñu wax ak kenn wala lu ñu wax ak ñenn kon ñi fi nekk yor ay cër yoo xam ne am na budget pour les femmes nañ leen seeti ngir loolu fa am ñun département bi soxla nañ ñu ko ñu jox ñu ko kon ñu ngi leen di santaat di leen gërëm ndax ay jàmbaar dëgg ngeen kenn ku nekk ci sa kuréel ci sa dëkk yaa ngi liggéey liggéey boo xam ni liggéey bu mucc ayib la loolu bu ko comité consultatif capitalisé rek liggéey département de Thiès kan mënu ko tey boo demee ca ne ba unité ya fa nekk nga dem pour jëndeer unité ya fa nekk fàndeen nga dem unité ya fa nekk nga dem ngunjaan unité ya fa ne nootoo gëm a dëkk unité ya fa ne loolu tey bu ñu ko capitaliser comité consultatif ku mën a dem bàyyi ko gannaaw mënul ne xeex bi nag metti na tar na waaye ba tey ñu ngi fi metti na de xeex bi métti na tar na waaye ba tey ñu ngi fi te ñu ngi liggéey it ngir jigéenu département de Thiès loolu nag bu ko bàyyi nañu góor góorgóorlu nañu gën a naxante ndax ñun ñoo soxla ku soxla nag foog nga naxante ña fa nekk doon ay mair ñu gën leen a jege tey ñaata adjointe au maire lañ am pourtant ci ñun lañ bokk <laughs> ñaata adjointe lañ am daanaka commune boo ci dem am na ku bokk ci ñun nekk adjointe au maire loolu tamit nag jéego la kon kenn mënut ta wax luy doxal gox yi bàyyi ñu fa mënut ta ne maa ngi jéegulu bu baax a baax maa ngi sant suñu coordonnatrice su SEDAF wax naa ko ci njalbeen macha allah jooyu ñu ne ndax ministre bi wax na ko keroog nee na dem leen ngeen jege ji SEDAF yi ni région yi amul SEDAF dinañ fexe ba ñu am SEDAF ndax nag ku kër googu moo leen mën a gunge loolu nag ah dinaa laajaat yeneen i waxtaan ndax nag comme fi la ñu wéeru fi la ñu bokk tamit dina dina laajaat yeneen i jéego yoo xam ne dinañ ci wax incha baax na jërëjëf.